par mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu Alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV ñoo ngi fii ak euh, monsieur le préfet de la ville de Tivaouane euh, du département de Tivaouane euh, muy expliquer vraiment déroulement bi nga xamante ni mooy élection yi naka la war a demee vraiment nga xamante ni yëpp pare na gis nga ko yi nga xamante ni mooy carte yi lépp préfet defar na ko mu yi nga xam moo war a ci de vote yëpp pare na gis nga ko mu ngi noonu mbokk yi Alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV noonu lañ koy expliquer préfet ñi noonu ànd ak agent yi di liggéey nga xamante pare nañ suba bu fekkoon préfet moom pare na pour def li nga xamante ni mooy élection yi alxaaji Mbaye Diop ak Mame Ndokh Tidiane noonu lañ ko defee aussi sur l' ensemble des communes du département de Tivaouane lépp préfet moo ko res ànd ko équipe bam di ko liggéey liggéey bu am solo mu ngi noonu sànq lañ doon def ak moom entretien mais wax dëgg yàlla yonent bi entretien bu am solo entretien boo xamante ne vraiment expliqué na yëpp ni mu war a ni mu war a leeree mu ngi noonu alxaaji Mbaye Diop ak Mame Ndokh Tidiane mbokk yi gis ngeen ko ngeen gis ngeen ko mu ngi noonu noonu bulletin yaa ngi noonu préfet yore bulletin yaa ngi noonu préfet yore je crois que ni euh, gars yi pare nañ ah. parce que sànq rek tey ci suba gis naa ñuy contrôler bulletin yi yëpp pare na 19 candidats yi kenn ku ci ne sa bulletin pare na euh, préfet ngi noonu di def les derniers réglages ak ñi nga xamante ni Diop Mbaye sama rak sama petit frère ak euh, ki nga xamante ni mooy Ajibu yeneen gars yi nga xamante ni les ASP ñoom ñëpp kenn ku ci ne ñu ngi def liggéey bi ni mu waree donc bulletin yëpp pare na déjà gis nga ko ñu ngi noonu voilà les journalistes Samb ñoom. GP TV ñu ngi noonu sama boy étoile kële nag mooy euh, kii comment dirais-je euh, Cheikhouna kaddu askan wi ki mooy Galaay bu GP TV ni booy ay triant lañ hmm. monsieur le préfet mu noonu di coordonné gaa ngi noonu joo aji bu frère suma gars pare ngeen gars yi pare ngeen. gars yi pare ngeen. sur toutes les communes. yéen Tivaouane rek ngeen res ah ak Mekhe yéen a ko res maa fi doon suba pare ngeen ay sama gars yi tey ah. weekend yëpp ñoo ngi fi kenn bougé wul ñoo ngi fi jour élection yi ñëwee. ku si nekk bureau ba nga dem di voté di nga fa lépp loo fa allah si diggante Tivaouane ak Mekk. ngeen mu ngi noonu fii mooy euh, bureau bi nga xamante ni fii la carte euh, carte électorale yi nekk. mu ngi nii pour ñi nga xamante ni dañoo war a jël si seen carte électorale euh, mën nañoo ñëw jël si ko fii ci préfet carte électeur. carte électeur yi fii ci euh, préfecture bu Tivaouane gis nga ko mu ngi noonu euh, soxna si moo fi nekk quoi. carte électeur yaa noonu gars yi ñoo doon ngeen jël seen carte yéen tamit ah. comme si ñoom rek dañuy am c'est là pour travail de contrôle nga xam ne lépp ci transparence lay amee amul lenn état bu ñu def nga fekk c'est là bi bopp ba ci distribution carte yi SIDA da koy fekk au niveau des des des bureaux de vote aussi SIDA da koy nekk. day fekk lépp. day fekk lépp. macha allah. macha allah ak bant chaque jour day xëy si. est-ce que nit ñaa ngi ñëw yaa ngi ñëw jël si carte yi. waaw ñu ngi ñëw nag mais bëri bu ñu noonu. waaw ak compte bu dul kër quoi. boo amee message booy lancé ñu ñu mën a ñëw jël seen carte loolu la ñuy wax. non ça on l'a déjà fait ok. waaw ah, jël ko.